mu ne ma budget bi génn na naa woo le secrétaire ak le conseil sport éducation conseil éducation ñoom moo walee ñoom ñu ni génnul affaire loolu jaaxal ma nag en tant que maire toog ni budget bi génn na secrétaire général di budget bi génnul te ñu laajte yi ñu ngi toog di xaar seen situation ñu di doon lépp même ma ci président man mi samay frais de déroulement yi may déplacé wu di dem Tivaouane Thiès na fépp mooy dem pour régler arbitre ak naa ba si fii mënuma finaalu jotuma sama budget loolu laa lan lan moo ko waral lan moo tax man li war def def naa ko organisé naa sama samay mu sama CNP mu metti trop amuñu ñu arbitre di arbitre suñu bopp di takk ñu dara. ñun ba léegi joxagul leen xaalis bi ngeen tàmbalee nawetaan ba leb leb un million la ñu leb man tant que maire moo ñu ko lebal nag su di direct maire moo ñu ko lebal. mooy lebal 1 million. waaw poosam moo ma doon déroulé. waaw bu bis bi génne ñu remboursé ko moo ma doon déroulé le li ñuy machines hmm. yi arbitre sécurité traçage du terrain ak yépp ci ci la ma doon fay waaw. mais léegi bis bi génn même tax utiliser xaliss la moy problème bi. ah problème bi xamuñu ko xam lan la dem naa sous-préfet mercredi hmm. euh, bi passé mu ne ma budget bi yëpp génn nañ saison 22 2022 jeex na depuis le jour du 30. jeex na en même temps secretaire secrétaire boloon naa koog euh, Mor mooy secrétaire général l'ASC moom sa réew pour mu dem ubbi compte l'ASC moom sa réew pour ñu verser ba viré ba 3 millions situation yi léegi euh, secrétaire nee na maire moo ko woo ni ko na ko bàyyi dina am ko kenn kum kum ko kum kum kum ko wax mu ubbil ko compte mu viré ko fa te ma loolu dafa ma xaw a jaaxal. maire war a ubbi compte wala ñoo war a ubbi compte léegi secrétaire ni maire moo ni ko. bu mu ubbi compte Mor Diop na ñibbi sa jóge Thiès ñibbi si pekk mu ne ko dana continuer bu mu njaar ngaay naa ubbi compte am naa ko moo woo ngaay pour mu ubbil ma ko loolu la moo jax ma xaw a jaaxale ci la bokk loolu mën a nekkee en tant que maire amoo récépissé situation yi la ma juumul récépissé ASC moo ko war a génnee waaw su ma su ma juumul récépissé ASC moo ko war a génnee en tant que maire du maire moo maire taxawee ni secrétaire na ko bàyyi ASC bu ubbee mu ubbi évité ko dernier moment mu ni woon a waaj jotu ko mu ji ubbi compte bi déwén nan xaar saison 2023 équipe bi taxaw di xaar seen situation. da ngeen di bàyyi bi xaar euh, saison 2023 soo ko continuer nawetaan. non non man boog li ma gënal. mais moom loolu la wax quoi. waaw moom non maire waxu loolu secrétaire secrétaire ñu mënul génn. secrétaire municipal bi waaw. monsieur municipal wax loolu ñu génn ren saison déwén lay a génn te bu bisee déwén ko ba saison bi di génn loolu la wax. te ñun dunoo équipe dafa taxaw lépp lépp ay xaalis mm-hmm. war ko fay ñi leen taxaw di leen fayeeku ba ci man mii mm-hmm. ñi taxaw di la fayeeku mënuñu xaar ñu xaari suñu xaalis leen soxla. est-ce que di ngeen finaalu kon. allah bëgg naa finaalu man. tant que président lu la mujj a wax. lu ma mujj a wax mooy ñoom lu lu pare ba rek euh, conseil sport sport éducation la ma wax conseil sport mm-hmm. nee na ma final lu fi am la ma wax moom final lu fi am. jarana ko moom saisir sous préfet pour muy interdire stade bi. le le conseil sport. le conseil sport. waaw mooy kan Baye ah ci conseil municipal bi. municipal bi bokk waaw moy mooy Baye Dame Diop. waaw moo wax loolu. waaw jarana ko moom bay ba final nar am un problème mu saisir stade bi tu stade ñu stade bi sous préfet. fan la commune bi tek loolu. waaw ah, mom xaw waaw moom xaw a jaaxal. te bu saisir stade bi tournoi amone bi fi bii passé Mbaylaar ñu xeex fi ñaari yoon ba équipe xeex ñaar ba tajooti fi ay bopp te kenn kenn arrêté wu ko. dañ ko bàyyi ba seen final ndax boobu politique la ñoom ñoo ko teg muy muy tournoi bi amoon mbay laar xeexal nañ fi ba toj fii ay bopp. waaw subvention euh, war a génne bise bi. waaw bu dañuy def mm. comme ni nga wax. waaw dañ war a génne ci bu ñu koy génne le secrétaire le le adjoint deuxième adjoint nee na moom bise bi zone moomuñu ko te zone mooy kuréel boo xam ne accordé bokk la ODECAF leen bokk. Mm-hmm. yéen bokk ngeen ODECAF. waaw lan bokk appuyé wu nañ. am ngeen papier légal am nañ papier légal état ñu reconnaître. lan ngeen wax ak waa ODECAF nag léegi. ODCAV wax na ko ñëpp wax na ko ñeneen def médiation dinañ fi ñëw lan wax dinañ fi ñëw pour loolu ñuy wax. ci mm-hmm. le président ñaa wax naa ko mu ne après na wax Pathé moo ko woo ko la lam yi deuxième adjoint la xam nga. day mm-hmm. wax dina ko woo mais ba léegi ñu ngi xaar boobu ba léegi fa une semaine dégguñu dara ñun nag doo bëgg a finalu finalement jàpp naa ko le 11 ak le 12 février incha allah bëgg naa ko. boo jàppee final sa xaalis ñëw. waaw dina sotti. ah ñi jéem par man man su paree pour débrouiller mais muy lebiwaat ñu lebiwaat comme ni defoon lebiwaat loolu nga xam. ndax fe dama jàppale ne final bu amul ren mooy zone PKS tas na. final bu amul déwén amul man benn équipe naa ko ñëwal final la woon suñu final yëpp noonu lay demee. xaar xaar regret amul ci wàllu ah, am am na kay ndax mais maire yi fi nekk liggéeyaloon pour SONES bi ñu liggéey seen bopp ba tax ñu liggéey mais pas sport ci bopp moo tax ñu liggéey xaalis sport bi budget bi da ko def pour pasar pasaree ko ne di ko lekk la nga ko def pour lekk ko mais pas jox ko sport bi waaw boobu bëgg nañ loolu mais ki ki dox wala ki ngay wax su lu la ne dinaa ko wax man du ma naa fekk si si di directement li ma wax lu ne bëgg naa ko def mais dangay wax ak moom dañu bëgg a toog moom dina ko wax mais du ko waaw la lay wax du ko wax boo waxee nag ni yëgguma ko waaw du àggale du ko àggale chaque fois depuis depuis deux mois boo woo directement des fois boo woo directement démb ci mujj woo naa ko li ma wax bise bi génn na waaw moom moom ma directement bise bi génn na génn génn na ko moom nee na wu ci moom ndax moom nee waaw pale wu ci moom lu may wax bise bi dina ko arrangé bu jot waaw loolu loolu wax ne li mu dugal da ko bëgg a jot génn na na dem ci adjoint bi ak Baye Dame le secrétaire général ak Baye Dame lan la mu wax ma wo Diagne directement munuma génnul bu la waye neexu ci bi génnul munu génn ren dewon lay génn afa loolu man dama jaxal man tamit te yëpp ñi ngi taxaw di ma xaar ba nuyu fa ci ñu la wo gu bëccëg di la wo dama wuyu téléphone bu mu tuma wuyu téléphone son situation son situation ay ASC la 3e match la mu suñu troisième match ko jox situation ASC jox ASC benn ASC juróom ñaar deureum dërëm ñu ko ay ASC ñaar deureum dërëm ñu ko ba ni ba final ñu war a joué final intercalé bu fekkee nag euh, waa maire dañoo am ci bâche bu nekk ci ginnaaw ngir bëgg a saboté wala bëgg a yàq nañ ñu ko wax sama zone man def ma pour loolu ma liggéey pour di liggéey dama liggéey ba sonn ba ëgg si bii kenn jàppale wu ma maay sécurité maay jaay tigee maay garde maay gas maay suul ba fii amul benn ku ma jàppale seul moi ba léegi maa ci nekk di dox maay dem super fépp maa fay dem maay woote lépp maa koy def ngir bëgg lan commune bi dox sport dox mais ay gens taxaw ñu si cob loolu lan la maa wala la lépp da nga defee da koy politiquer ko dañuy tournoi am na fii tournoi am na fee pour tournoi tournoi la mooy tournoi tournoi fan fu mu bokk ban ban kuréel la bokk amul kayit amul dara amul récépissé amul ko illégal quoi waaw a ba ñu bëgg lay ni final bi am na suñu am na tournoi am na suñu final du am waa maire tax wax loolu waaw wax loolu tournoi CNP la leen def def na ba final na na suñu final loolu lañ bëgg ñun mana tak, ku mana tukar, tukaw mana mën a jàpp ak mana nak, ci mana a ne ku mën a doon yaa toll ci mën a final bu suñu zone déwén ñi am di bi leen ma di équipe am déwén ñi am 12 équipe wala 20 ba plus de 20 équipe ñu am ko mais bu ko am amul final amul ren mooy équipe bi zone bi tas na pekes. wala ñu divisé